problème mu jaral ñëpp takk rajo yi di kaas naan waaw dafa préféré di léegi du ngeen xool li mu gagné du ngeen xool li mu économiser du ngeen xool li nga xamante ne jooyante na ko si déedéet dañ naan non préféré doomu jaam dafa jaar ni yoon banque yi sax d'ailleurs bloqué nañ ni def nañ ni def nañ moo tax ma ne Sénégal ñu def ñu jooyante ko du yomb. ndaxte parce que ku nekk intérêt lay xool. ndax fi ñu toll nii dégg naa am na say gox yu mel ni Kédougou Saint-Louis. su ma mhm. mhm. ñu waroon tàkkal wala leeral ko mënatul am ndax lañ ko dindi est-ce que mënuñoo wax li koy wax ne sénégalais mooy soxore moroomu sénégalais non mais mooy soxore moroom sénégal parce que ku nekk day seet intérêt personnel am maanaam naka laa si mën a amee ay milliards naka laa si mën a amee ay millions loolu mooy suñu problème naka laay def ba am ay milliards naka laay def ay ba ba ba am ay millions moo tax ñëpp yéen ko mais lii bu dee coow li def si am ni normalement dynamique bu mu dugg nii ñëpp a si ko waroon a encouragé pour ñu renégocier waat contrat yi dèjà ku jógee 1500 dem ba 1700 loolu rek de. ndam léegi leneen di mhm. des nañ ko jooyanti ay erreur na see na am. on ne sait pas. Mhm. mais ñu jooyanti ko xool naka la ñuy def ba avancer c'est dans l'intérêt du Sénégal mais su fekkente ne bu loolu jógee ay doomu réew mi ñoo xam te ñoo ko waroon a dooleel jàppale ko ñoo taxaw jàkkaarloo ak moom di xeex ne ko noonu lii du am je pense que loolu problème la déjà. Mhm. jërëjëf euh, loolu euh, problème la ba tey dañuy des ci waxtaan bi mën nañu wax ne li ñu des ci ay minutes euh, bëriwul ngir 14h jot waaye am ca beneen ponk Moustapha xam nga ne ginnaaw gi nga xam ne ki fi nekkoon njiitum réew Macky sàll ca Casablanca am na soxna soo xam ne moom la laale woon ba soxna soosee ñu tegoon ko loxo jamono gi relaxé nañ ko mu def vidéo confirmé ne affirmé ne moom moomee moo laaj Macky sàll lan moo tax mu rey askanum Sénégal si loolee ñu gis ministre des étranger Yacine mom momé jël ben euh, bataxal bind ko ngir kookee nga xamné moy soxna si euh, amone ak problème ak Macky Sall ngir ñu taxaw ko niñ ko waree taxawé lool nak mën nañ wax né euh, ñi ngi bok si APR rawatina Abdou Mbaw dañ sé mer ba nyen ñen ñu bëri ne fiñ toll ni mën nañ japp né ñi nekk ci nguur gi dañu def applausiw li nga xamné modi di kuy asarne wu ci nit ak kuy nit ban taxaway ngay ban jangat ngay mën def si ministre des affaires manam des affaires étrangères si position décision bi nga xam ne moom la jël taxaw doomu Sénégal benn doomu Sénégal boo xam ne daa jote woon nag beneen doomu Sénégal. d' abord li may njëkk euh, a d' accord mooy plainte bi. Mhm. pour man plainte amu ci woon raison. gis nga incident yooyu fépp lay am gis nga bu fekkente ne da nga nekkoon ci njiitu réew ba nekkatoo njiitum réew il faut s'attendre à tout surtout Macky Sall ni mu génnee il faut mu xaar lépp. mais bu fekkee da nga nar a gànnaaw say plainte fu nekk nga bëgg ko plainte mais léegi dañuy bàyyi doomu réew mi ñu plainte ko ñu toog ne waa léegi nañ bàyyi justice bi di lijjanti ku nekk bitim réew noonu mais il est dit devoir de nos autorités tey jii sénégalais fu mu nekk bu ñu ko plainte ñu indil ko seen taxaw loolu fépp la am. rawatina nag bu dee doomu Sénégal moo plainte doomu Sénégal sénégalais fu mu nekk seen devoir la ñu indil ko seen soutien lan moo waral mu koy plainte pour man foofu la problème bi nekk parce que su fekkente ne tey jii yow danga jiite woon réew mais jiite nga réew ba wàcc. am na nañu mm-hmm. d'accord am nañu d'accord ñu ëpp d'accorduñu moo tax nga jóge fa. Mm-hmm. waaw mais léegi bu amee ku taxaw mane dëkk yu bëri tey ji yenn yi du fa doon kaa wala ay plainte ak yi nii bu doon yeneen dëkk la boo ñëwee di plainte sax duñu la faal dañ la hmm. nga def leen fi ay président ko fi def hmm. Donald ay président la woon sax yow nga nekk ancien président ñu ne dañ laa toog am ñu la wax yoo xam ne waxul sa soxna dugg ci après lu ci plainte di wut Damien Tafaral mi plainte Macron est que tëjuñu ko juróom benn weer xaw ma ñetti weer

parce que bu ñu toogante ji jàpp seen ñaam ñu dégg ñoon kooku defeere nañ kooku def nañ ñëw ak def nañ nële après kan mooy doon fautif bi mais est-ce que nekkul Moustapha aussi naam seetlu nañ ay jamono euh, ñoom bi ñu nekk ci nguur gi dañu doon jëli ji ay doomi Sénégal yu nekkaale à di leen wax ay terroristes ngir ñu jox leen ko amuñu abitude jàppale doomu euh, doomu Sénégal bu nekk à l'extérieur au contraire dañ leen di jéem a xool nu ñu leen andee le cas de Assane Diouf euh, Tunkara amoon na euh, ñu bëri daan nañ jooy ne daaw leen assister est-ce que tey bu ñu jisee gouvernement bu bees boo xam ne doomam moo tooñ wala tooñul qu'importe lu mënti xew da koy ñëw épaule andi ko est-ce que tey nekkul ne looloo tax ñoom ñu attitude bi nga xam ne moom la ministre bi jël. ñoom duñ ko nangu waaye tamit dañuy bëgg faral Macky Sall mais tamit lu ñuy fàtte Macky Sall ancien président la waaw. mais actuellement nag citoyen sénégalais la comme ñëpp bu amee jafe-jafe ak kenn état bi dafay am responsabilité ak devoir taxaw ki nga xam ne am na jafe-jafe surtout moom en ancien président moom moo wàcc bay porter plainte parce que pour man bu doon ndaw si da koo mbéj bu doon ndaw si da koo dóor waaye taxaw di wax mais yooyu dina dina dina daje yeneen. dina si daj te gis nga fi Maroc la ci ci yoon li mën na dox yeneen ci mbedd Europe wala feneen ak feneen ay ñi taxaw wax ko lu ko métti du ci mën dara du la mën a plante moom moom laal bëgg bu nekkee ne Macky dafa ñëw si élection bu nekkee dafa ñëw Sénégal nan lay demee nu muy demee foofu fii du fa mën a plante kenn te dina yor oto ne day campagne nga xool ñi muy dajal lu ñu koy wax lu ñu koy wax da leen dem da leen di porter ji plainte mun leen porter plainte te su boobaa nit ñi xam nga bu xamee ne Macky Sall mi nekkatul président amatul décret yoratul gendarmerie yoratul police ci ginnaaw ay nervi dong lay topp te nervi amatuñ kuñ dóor cortège amatul cortège amatul te sa nervi kuñ kuñ fu dóor ñu lijjanti ko ak ñoom non su boobaa dina am amatul bànjanki <laughs> su boobaa su boobaa dina xam ne yàlla julli la santaane de eh, eh, loolu moo tax